nekk yëpp euh, sama maam jëri Sow ndeysaan Ibrahima Sow am naa émotion bu bari lañu ñu accueillir fii ñu ngi koy nuyu waaye di nuyu waa dëkk bi ak xale yi nga xam ne nekk ci biti daa ñuy accueillir yi anam boo xam ne foogewuñu ko woon ba seen euh, nous sommes très ravis est rencontré un représentant de la communauté chrétienne, qui est une communauté extrêmement importante au Sénégal, en tant qu'entité spirituelle d'abord, mais également de, de par rôle qu'elle joue dans des actions de développement, d'éducation et de santé. On a donné un exemple cette communauté qui est parfaite synthèse du spirituel et du temporel. Beaucoup d'entre nous ont fréquenté des écoles catholiques, privées catholiques, dans leur Beaucoup d'entre nous pu bénéficier de prestations de santé dans des postes de santé édifiés dans le cadre de Caritas, d'autres programmes par la communauté catholique. Et je dis que c'est la parfaite synthèse du mariage qui doit entre le spirituel et le temporel et au service exclusif de l'humain, quelle que soit son appartenance régionale, ethnique, sociale, sociétale, religieuse. Et c'est ce que l'Église fait. C'est pourquoi c'est toujours pour nous qui ambitionnons diriger communauté pareille. Parce, parce que donne en modèle les actions de cette communauté. Et si se réplique suffisamment, ça peut nous valoir beaucoup de satisfaction pour le soulagement des Sénégalais et des Je suis d'autant plus ravi d'être là que vous avez pris l'initiative d'élargir cette rencontre en invitant l'imam et un certain nombre de notables. Ah, c'est un tableau magnifique de ce qu'est le Sénégal. Au-delà de nos croyances et de nos appartenances, nous sommes avant tout des frères et des sœurs africains, sénégalais qui partageons des espaces de vie. depuis des décennies, des décennies, pour ne pas dire des siècles, par le génie de nos grands de nos aïeux, perpétué loolu yow la ñuy dimbali ndax li li ñuy def am na ci loo xam ne ci état lañ ko gënoon xaare ñoom ñu koy def di wàññil état bi li nga xam ne liggéey la waroon waaye nag gën naa kontaan bi ma ñëwee gis ci daje bi fii ci biir ëttam mu yaatal ko ba ñu invité ci ki nga xam ne mooy imam fii ci dëkk bi ak ay kilifa yu bari ñëw teewe daje bi muy lu ñu rafetlu kontaan ci trop ndax lii mooy Sénégal lii moo tabax Sénégal lii moo utale Sénégal ak dëkk yu bëree bëri bëri ci àdduna waaye ak dëkk yu bëri bëri ci Afrique ba tax nit ñi yàgg nañoo xeex di corante ay jaas yi teg ko ci ay xeet ak yooyu te ñun mucc nañ ci ba tey lii mooy Sénégal kon nañ ci gën a góorgóorlu gën a dëgëral diggante nit ñi parce que balaa ñuy nekk jullit wala catholique balaa ñuy nekk séeréer wala mankañ wala olof wala tukulóor wala joola balaa ñuy nekk loolu lépp nag ay nit lañu d'abord yàlla tànnal ñu boole ñu fii ci Sénégal te kenn mënul génne sa morom ci Sénégal kenn topp sa morom droit ñu ñëpp a yem lañuy ñuy noppal mooy ñu fexe ba rataxal diggante di dem lante seq jàmm rafetal li ñu bokk. mais tey projet bi mooy amee. ay euh, ay dans le monde entier loolu la ñuy ñaan yàlla

pour andi ay problème ak ay wax yoo xam ne jaru moo tax lu ñu mën a def ci biir kër yi rek nañ ko fi def te it nag yéen da ngeen am chance bu ngeen xamul ndax lii suñ ko bëggoon def ndakaaru duñ ko def ndax këru ndakaaru moom deux cent mètres carrés la ak cent cinquante mètres carrés waaye yéen da am chance boo xam ne macha allah tabarakallah gis nga fii ni mu mel toujours dama naan nitu taax ñoo war a ñee nitu kaw gi ndax cadre de vie bi ngeen am amul ci taax yi yi ñi ci jot am kër gu ñu moomal seen bopp ay cent cinquante mètres carrés deux cent mètres carrés waaye li ci ëpp sax ci ay appartement la ñu dëkk appartement appartement moom ni ko waaji tënkee rek mooy génn ci nekk duggu ci néeg génn ci nekk duggu ci salo waaye ëtt boo doxantoo amu ci kon ñu ngi leen di gërëm di wax ni doxantu nemmeeku la li jiitu ci nemmeeku mooy xamante ak ndax gëm naa ni tey suñu génnee ci dëkk bi waa dëkk bi dinañu gën a xam Sonko waaye dinañ mën a ne au moins jàkkaarloo na ak moom jëmm ak jëmm lu wut rek tele xam naa ni sax ñu bari ñu ngi naan ah ndekete lii rek mooy Sonko ndax da ngeen di xëy suba ba guddi am Sonko andil Sonko ba di ku kiiwul sax day jàpp ni Sonko benn damitu malaayka la lii de mooy Sonko ah <laughs> eh, saa waay kon loo xamanteeg yéen gisanteeg yéen mooy li jiitu ci li ñuy wut ci dox yi ñuy dox ñaareel bi mooy waxtaan ak yéen tuuti ci li ñu bokk. li bokk mooy réew mi moom lañu yàlla boole ñun ñëpp nag kenn ëppalewu ci ki moromam kenn mënu cee génne moroomam kon loolu buñ ko bokkee day jaadu ñu ciy waxtaan rawatina nag ñun ñi ñi nga xam ne am nañu yéene jiite réew mi ak yéen ñi nga xam ne yéenay askan wi yéenay tànn loolu mooy ñaareelu objectif bi ñëwee nag ci dëkk wax dëgg yàlla lii suñu priorité mooy ñu fexe ba la fa toogal nit ñi ci dëkk bi muy chef de village imam curé ñu fexe ba ñooñ ñu gisee ñoom parce que ñu gisee ak ñu gisee nañu dëkk bi yëpp bu ñu waa dëkk bi mu ne fekk ci ñooñu seeni kër suñu yaay ji doon wax léegi suñ ko suñ ñaawoon dañ lay dénk am réew ñu ne réew mi dañ ko boole ci ñaar fukki réew ak juróom yi ñu ne ñoo gën a ndóol ci àdduna Sénégal ci loolu la ko ñu ko xam ñaar fukki réew ak juróom yi ne ñoo gën a ndóol xam ngeen nu ñuy nattee ndóol wala wala omle ci réew suñu naan réew ndóol na du ñu xool loolu bi nattuñu ko ci est-ce réew mi am na ay autoroute wala am na ay immeuble yu kawe wala am na ay stade yu yu cher a cher wala am na ay autorail yu cher déedéet ndóol ak ñàkk ndóol ñu ngi koy nattee ci nit parce que li ëpp solo mooy nit nit ñi nekk ci réew mi naka la ñuy dundee réew moo tabaxoon ba mu mel ni New York foo tourné di gis gratte-ciel yeeg euh, métro yeeg ñoom seen te nit ñi se ñu dund bu jaar yoon réew moomu réew mu lañ koy classé li tubaab di wax indice de droit de indice de développement humain mooy nit ki ci boppam boo ko jëlee est-ce que mi ngi lekk lu doy ak li muy lekk est-ce que baax na est am na qualité nit ki ci boppam boo ko jëlee est-ce que mi ngi jàng ci système éducatif boo xam ne système bu baax la ba ëllëg mu war a mën a taxaw fépp ci àdduna jàmmarloo ak ñeneen ci xam est-ce que nit kooku tey bu yaram sutantee ma nga faju ci faju bu jaar yoon te yomb est-ce que nit kooku mi ngi am xëy ba war a mun a faj ay aajoom am na liggéey bu ànd ak payoor ba mun a faj ajoom loolu la ñuy wax indice de droit développement humain moo tax développement du ay tali de du ay immeuble boo tabaxoon du toll noonu te tey sénégalais yu bëri pour ñu lekk ñetti repas ci yoon am ndékki añ reer jafe na ci ñoom yow da ngaa sous moo tax ñaari système yi benn bi mooy ñu jox la réew nga bëgg lu lu ñuy waxee tappaale yi euh, euh, mooy bëgg bëgg a yëm nit ñi yëm te ni ngeen mën a yéemee mooy na nga def ay mbir yoo xam ne ku toll fële ni gis ngeen li ñu tabax fii ni mu toll gis ngeen suñu terrain bi suñu stade bi comme stade euh, France gis ngeen suñu train bi comme train wu France France balaa muy tabax stade bi mu tabax balaa muy tabax train bi mu tabax defar dafa njëkk a defar mbay mi mbay mi ba mu baax defar jàmm gi ba mu baax defar napp gi ba mu baax fexe ba créer conditions yi ba ku feebar faju créer conditions yi ba njàng mi baax ba tey ñu mun a am ay borom xam-xam ay kàng kàngam yoo xam ne mun nañu yor développement réew ci la ñu doog a toog nag naan nañu tabax ay stade stade de France ak nangam nangam stade de France sax yàggul ndax parc prince moo fa newoon parc des princes te boobu. stade bu yàgg la woon yow defagoo dara ci loolu lépp di jël ay mbir pour ñu naan xool leen stade senegal bi moo tax ma ne la dénk nañ na réew ñaar yi moo mun a am nga dem tubaab yi nax la lebal la xaalis ne la nag doo ko def ci mbay mi de parce que boo ko defee ci mbay mi da ngay ni da ngay am indépendance dootu leen ñëw jënd ci ñun doo ko def ci càmm gi parce que bugguma ngeen di defar set meew yéen. mooy dernière inauguration fi mu ne nii ñu ngi rey seen bopp pour BRT bi pare mooy doon dernière inauguration nag bu ko defee gars yi ni gis ngeen bus yi am Dakar léegi waa léegi ma laajte 17 millions de sénégalais lañ Dakar ba mu daj 3 millions à pare moo fa nekk léegi. Euh, nu mu tudd 14 million de sénégalais yi des. te fii waa Baliga bokk ci ñoom dañoo bokk Sénégal wala bokkuñu Sénégal ragran bi ñu dugg ba egg si fii laajul ay milliards de quelques millions rek ñu defar rang bi loolu mooy premier système bi li may wax ni mooy premier système bi parce que partir de ma ko li koy mottali mooy tubaab boobu buy nax ñi fi nekk da koy booleeg yeneen yim koy booleeg mooy comme yàlla def na sa réew am na lu ma amul man mooy sa réew am na ay ressources naturelles lu mel ni phosphate lu mel ni zircon lu mel ni pétrole ak gaz lu mel ni or fële ci Sabodala balaa mbir mi di ne di baax ci ñoom il faut que yooyu yëpp nga fexe ba man ma teg ci sama loxo yóbbu waaye waruñu koo bàyyi sa loxo yow mu may la kattan goo développé sa bopp moo tax zone bi yëpp nag diggante phosphate ak zircon département Tivaouane mi ngi fi fees del bi ñuy ñëw léegi dama ne sama chauffeur waaye yow fii bëri na rang-rang di oto yi ni mu yëngatoo mu ne ma suuf si sax dafa mel ni calcaire la kon fii yëpp calcaire la calcaire boobu xaalis bu dul jeex la est-ce que waa dëkk bi ñu ngi koy gis loolu mooy premier système bi système boobu mooy système mu Macky sal mooy système bi fi yàgg a nekk te ñu tële ñi ñu jiite tële pour jële ko fi ki ci xawoon tane tuuti te yegg dem demu ci ba jeex mooy président Ablaye waat ndax au moins am na am na yu mu ci commencé woon def ne a ah, réew mi nag duñu nangu France moom ko dinaa ko ubbi na Iran yi ñëw na saoudien ñëw na hollandais ñëw na indien ñëw na américain ñëw waaye dañuy ubbi réew loolu au moins defoon na ko demoon na sax ba ne waa euh, français yi ñun réew bu indépendant la ñu soxlaw ñu ngeen ak fii militaire delloo leen ma sama base militaire loolu au moins jotoon na ko ci def te benn jéego la waaye nag des na lu bari lii mooy système bi ci nekk te li ma wax rek li ma wax yépp yéen ngeen seen bët xam ngeen ni créé wu ma inventé wu lii moo tax Sénégal sooxe parce que réew moo xam ne moo sa bopp sa koppar gi ngay utiliser sax moomoo ko dañ na ko abal koppar gi ñuy utiliser ku yor ci yéen cent franc wala cinq cent franc ci sa biir poche koppar gi moom moo ko te loolu be mooy premier indice souveraineté moom sa bopp yow suuf si sax ñu ngi koy nangu sa loxo soo amee or wala pétrole wala zircon wala leneen ñu nangu ko sa loxo yow nga des ci ngundool mi soo demoon bay def ay travaux sax ñoo ñoom ñooy andi seeni nit ñu def ko mu mel ni ñun ay nit ñu ñàkk xam-xam ay nit ñu mënul dara ñoo nekk biir Sénégal loolu mooy système mu Macky Sall système boobu la ñuy xeex ñun système boobu lañ fi war a jëlee parce que dama bëgg waa Sénégal yëpp rawatina yéen ñii dalal ñu tey waa Bandiga ngeen xam ni Sénégal yàlla def na fi loo xam ne France ci boppam amul lool ndax France amul or amul pétrole amul zircon dara amu ko ci ressource naturelle fii lañ koy jël see Afrique bii lañ koy jël see yàlla def na fii ci Sénégal loo xam ne buñ ko téyewaatoon ñun teel ko suñu bopp yor ko ci yorin bu rafet ci diir bu gàtt gëm moo ni dina amati xale yi Sénégal bu naan man dinaa jël gaal pour dem bitim réew xalaatuñu ko yàlla def na ko fii waaye am njiit yu bon njiit yu complexe ñàkk wekk seen askan waaye am complex ci tubaab ak ci naar ak ci chinois ak ci keneen ak keneen loolu rek mooy suñu problème système boobu lan moo ko fi war a remplacer mooy deuxième système bi ma leen wax moo tax dañ leen wax ni ñun suñu xeex li ci njëkk mooy li yàlla may ci alal nañ ko téye ci réew mi.